dagg dagg mais parce que trente cinq minutes la te mënu ma dugal lépp donc dama tey dama leen dama koy dagg chaque jour ma jox leen presque euh, deux trois donc moom Coura nee na aji ngaaka la bu dugal ci dil bi nii fen loo ko yëpp dina leer déglu leen de Coura Macky wax de Coura Macky <laughs> après aji saar Coura Macky lii nag fu ma ko daggee mooy dafa bëgg a maanaam MC Niass bu ko doyen de juge woowe mu war a yóbbu ojo yi ci la ko kii nga xam ni mooy kura njaay di kura maki woo di ko baab pour mu bañ a yóbbu ojo yi audio bi loolu ojo bu gudd la waxtaan bu gudd la sax mu ne day delloo MC Niass ci yàlla donc ay waaye MC bàyyil bàyyil mu sedd MC di ko ñaan te dafa génn ci mbedd mi ne daa saaga MC de day il faut ngeen xool suite dafa génn ne MC dama ko saaga ay ndey MC dama ko wax MC dama ko tontu MC dama ko saaga toroxal ko dàq ko ci xaj hmm. di duul di dox rek MC MC dama ko dama ko dàq toroxal ko MC MC dama ko saaga ay ndey MC ñoo MC yow man dama ko faale yow MC man may ñu day dox rek di dox duul di dox rek di duul di dox rek ay duulkat lañ te te daf ko doy ñaan di audio naa leen ko tegal di ko ñaan di ko saraxo ngir yàlla pour bu mu yóbbu audio yi ne Adji Sarr complot la moom ci boppam léegi kuréel mag i ngeen di déglu muy wax complot naa leen tegal lépp ndànk il faut ma expliquer leen réalité yi pour après ngeen mën a dégg ngeen mën a comprendre lu waral waxtaan bi nu ma ko daggee la ay kanam tuuti ne. na non nee day dox ci xelum si eh, di ko gëm ni yàlla bàyyil mu sedd ñu man mun naa dee léegi comme yow mun ngaa dee te àdduna amul solo. di dëmm dëmmlu nee na yii nee na day delloo doomu Baay Ñas nee na ci yàlla nee na day delloo doomu Baay Ñas boo xam ne du du Ahmed Khalifa Niass melul ni Ahmed Khalifa Niass kenn ko ci ay kaso te booy la comme ñun waroon dund li Ahmed Khalifa di dund defu ko Ahmed Khalifa Niass nekk ci nga mu ne day delloo doomu Baay Ñas caatu Baay Ñas nee da koy delloo ci yàlla na mun ngaa dee man mun naa dee àdduna amul solo yow MC Baal mi sedd na day dox ci ci maanaam MC Niass ayca dañ ko sirata good par good di yëy ci Hollywood di dégg dégg ci dégg sa right all right gis mu leer wax mu wóor let's go guys <laughs> waaye kuro kuro kuro nekk na oustaz waayi ay waaye kuro oustaz waayi nee na day dox ci maa ngi di MC naan ko mun ngaa dee man naa dee yow booy dee dem safara MC kuro kuro booy dee di dem safara billahi wallahi safara jahanama matt nga matt safara nga nga naan ay mun naa dee booy dee yàqu booy dee di yàqu ne ma couronné nga couronné ya na ne. yàlla na yéex am moo tax il faut ñuy sóor des fois. aji ji benn innocent la rek bu ñëw ñu dugal ko ci maf bi yow xoolal jaxase ko rëbëje ko xamul li muy def dara laajal aji ndax ku la mag xam nga magi def mm-hmm. mm-hmm. <laughs> dafa ree dafa ni ci yàlla ma waa président mais yow dégg nga li la Sonko di waxal mu rëyee ni ma dem defi sa musiba ba pare man ma tëdd di nelaw nga di ma ko ji kaa <laughs> di reetaan. waaw ma Sonko day fokk ma ñëw foofu ma man sama diggante yàlla rek laay toog di xool yàlla ak sama diggante parce que gis nga àjjana du bàyyi moo ma fa yóbbu du keneen ku fa yóbbu. déedéet sama jëf. déedéet man damaa toog ak aji. nga cité ma ne ma Mamour Diallo. moo tëgg lépp moo def lépp. man avant may toog di wax nii. yónnee naa ci moom ne leen nañ leen waxtaan ñu fay wax ji ndax fa muy dem du baax. parce que man tamit doomu jullit laa mënumaa toog gis dëgg na duma wax dëgg. dem kër Macky dégg nga sama vidéo barki démb nee naa leen képp ku ne ci réseaux sociaux bi man maa lay jàllale munoo ma jàllale li ma am ci politique yi munu leen ko am parce que Macky Sall bu li ko dese bariwul perte ngeen te ngeen di changer bés. donc ci waxtaan bi tey ba mu waxee wax na ne Adji Sarr dañ ko dugal ci maf bi. dañ ko xale la ñu nax ko dugal ko ci map bi ci ay fen ci ay bandi maanaam ay bandi ñoo ko nax wax na ko wax na ni bu ma demee di wax ak Macky Sall naan ko euh, Sonko de moom moom moom lu ñu wax na di la ci taqal Macky na ko non mu dem def ay njombeem MC na ko affaire bi <laughs> complot la mu nangu ci biir audio yi comme moom da doon wax parce que boo gisee ma ma def audio yi dagg dagg daggee nii parce que moom da doon menacé waate di wax ay waxu audio bu génnee xam nga ñu porter plainte seen affaire fan yooyu ñu def Sénégal ak ñu caaxaane Sénégalais yi napp Sénégalais yi mais man man maay génn tocc mi seen maam yi donc boo leen dégloo donc parce que 35 minutes dafa gudd dama koy dagg dagg dagg dagg ndànk-ndànk di leen ko tegal bu ngeen jaajëlee ak ma doog ko fëgg pour l' instant. Koura ana foo saaga MC da nga ne da nga ko saagaay ndey anamu dama la bëgg a woon ni rek maa ngi say ojo de audio bi 35 minutes seen waxtaan yëpp maa ngi moom man du ma déggante ak MC Niass du ma wax ak MC mu ngi dund dund maa ngi dund sama dund c'est lépp 35 minutes am ah, loolu mënuñu ko xajal fii donc lépp laa dama la bëgg a woon yor naa say audio rek dama la bëgg a woon ni yor naa say ojo man ojo yëpp laa yor soxla mooy dem ci MC may teg lépp incha allah donc yow <laughs> yaa saaga MC ah <laughs> kon ana saaga bi. non munu ma leen am na ñoo xam moom lu yomb rek lañ bëgg dañuy toog waaye moo la bàyyi audio bi mu dem yow moo laa jox ñu audio bi eh, ma ñëw man ñëw ma fi pour jox leen ay audio yi ak bàyyi bi mu dem de maa koy defee ni ma ko bëgg a defee ni ma ko bëgg a defee laa koy defee defuma ojo yi pour jox leen ko pour ngeen dem déglu ji après naa ndox audio yi dama ko jox pour ngeen gis affaire bi ngeen comprendre li ma doon wax démb ak bërki démb mais aussi ngeen ressuscité wu ngeen yeewu ngeen tépp ngeen bañ ñu nooteel mais joxuma leen audio pour pour ngeen def ko naanukaayu ndox joxuma leen audio pour ngeen def ko ay ay ay trois normaux ay ataaya joxuma leen audio pour ngeen def ko seen jus di di ko naan nu mu leen neexee di tàqamti ko man audio yi may joxe dama mu doon kaani ci yéen dama doon mu doon kuddu kaani ci taab ku audio yi féppaloo ëpp yu jógloo mais joxuma leen ay audio joxuma audio ah, voilà voilà joxuma audio ah, man man ma joxuma leen audio pour ngeen tàqamti ko de joxuma leen audio pour ngeen tàqamti ko man ci xeex laa nekk de damay teg nan laa mën a def pour fipploo leen nan laa mën a def pour yëkkati nan laa a def pour ngeen jóg ci seen fu toog nan laa may joxuma leen ay audio pour ngeen tàqamti ko joxuma leen ay Dakar li ma leen jox du ay Dakar du ñambaanu daqaar du ñambaanu madd joxuma leen i jus joxuma leen i bisaab joxuma leen i euh, lu tuddati soxlaa kaani la kii lii kuddu kaani la ci taatu waxata kuddu kaani ci taatu waxata te yéen xam ngeen ni man damay am nu may demee topp ma benn bëgg wu doomu aadama lu ma leen jox joxuma leen pour ngeen tàqamtiku joxuma leen pour ngeen sirote joxuma leen pour ngeen dugal seen kiir dara dama leen jox pour ngeen tëpp dem farata la dama leen jox pour ngeen jóg fu ngeen toog dama leen jox pour ngeen bañ dama leen jox pour ngeen lànk dama leen jox pour ngeen xeex injustice ku yaakaar ne damay dem rayante dugg buuju ci ay ojo dugg fu ne ñëw indi jox leen ay audio di leen jox pour ngeen tàqamtiku ku ko yaakaar tey nga dee joxuma leen audio pour ngeen tàqamtiku jox ma leen audio pour ngeen pour ngeen di secretu jox ma leen audio pour ngeen ah, ah taqaay gi saf la de ah, ñambaat nga def bi nag lii ah, màdd lii du lii du ñambaan lii du buy lii kaani la kaani Tyson lii kaani gu saf-sàpp la kii kaani confiture la ubbi leen seen mburu yi ngeen diw ci kaani confiture yëy di di di gañ ñi di gañ ñi <sighs> man loolu laa bëgg gis ci yéen man bu ma leen koy jox ngeen naan du ma ko du ma leen ko jox dama leen bëgg di leen ko jox ngeen naan nii di ngeen naan nii mburoog kaani ana ah, ndox ñu naan ndox amul ngeen naan Macky Sall taw ni gars yi mer nañ de waaw di ko yëy naan ñëpp naan di ana ndox man joxuma leen ndox la joxuma leen ndox a nga waaw sama kii bi ngeen tàkk man loolu moo tax ma jóg joxuma leen ko pour ngeen sirote de ku yaakaar ne dama laa jox pour ngeen sirote ngay cappi-cappi ak ñammi-ñammi ak a tàqamtiku man loolu taxumaa jóg te yii laa leen jox ñetti ngeen yem ci ëllëg ma joxaat leen leneen man tàqamtiku taxumaa jóg man kanam tuuti ñu happen every time dafay am dafay am moo tax il faut ñuy sauver des fois aji gi benn innocent la rek bu ñëw ñu dugal ko ci maf bi yow xoolal jaxase ko rëbëje ko xamul li muy def dara laajal aji ndax ku mag xam nga mag mm-hmm. mm-hmm. <laughs> dafa ree dafa ni ci yàlla ma ne waa président mais yow dégg nga la Sonko di waxal mu rëyee ne ma dem defi sa musiba ba pare man ma tëdd di nelaw nga di ma ko ji kaa di reetaan. waaw ma Sonko day fokk ma ngay fenal Sonko de ngeen duule mi dinaa audio beneen yu may ñëw da ngay gis fu mu taxawee dindiwaat li mu wax ni ci biir audio xam nga dafa wax ni dem na ba gis président président na ko may def si maam di ne ne ne lépp complot la même ci biir audio bi am na lépp complot la wax na dèjà ne aji ngaaka la dañ ko dugal ci dil yaa ngi dégg bu mënoon duur rek. ah dégg dégg ngeen. benn innocent la rek bu ñëw ñu dugal ko ci maaf ah, bi yow xoolal jaxase ko rëbëje ko xamul li muy def dara laajal aji ndax ku la mag. ma ñëw foofu man. xam nga mag yi def. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> dafa ree dafa ni ci yàlla ma ne waa président. mais yow dégg nga li la Sonko di waxal mu rëyee ni ma dem defi sa man ko <laughs> ma ma ñëw foofu ma ñëw foofu man sama diggante yàlla rek lay toog di xool yàlla ak sama diggante parce que gis nga àjjana. du bàyyees moo ma fa yóbbu du keneen ku fa yóbbu. ku sama jëf. déedéet man damaa toog ak aji. cité mhm. ma ne Mm-hmm. moo tëgg lépp moo def lépp mm-hmm. man avant may toog di wax nii lu mm-hmm. nee naa ci moom ne leen nañ leen waxtaan ñu fay wax ji ndax fa muy dem du baax parce man tamit doomu jullit laa mënumaa toog gis dëgg ne du ma wax dëgg dem kër Macky Sall nu ma neexee dégg nga naa leen képp ku ne ci réseaux sociaux bi man maa lay jàllale mënoo ma jàllale li ma am ci politique yi mënu leen ko am parce que Macky Sall bu li ko dese bari mu perte ngeen wax ngeen fi ne di changer bes dégg ngeen nee na lu ko dese bari perte ngeen seen duul yi maanaam compléteurs yi tey rek ngeen dee Mamour Diallo tey rek nga dee eh, Gabi tey rek nga dee ñi ci newoon yëpp ay Dior Diagne tey ngeen dee gis ngeen moo nee na jeexal na kura Macky moom waxul waxu troisième mandat nee na Macky jeexal na tey rek ngeen dee Macky moo ko wax de waxuñu leen dégluwu leen déglu leen nee na tey rek ngeen dee yéen waa APR yéen waa Benno Bokk Yaakaar Macky jeexal na tàkk tey rek ngeen dee donc Sénégal kura Macky sax nee na Macky jeexal na. dem ma neexee. dégg nga sama a barki bi ma nee naa leen képp ku ne ci réseaux sociaux bi man maa lay jàllale munoo ma jàllale li ma am ci politique yi munu leen ko am. parce que Macky Sall bu li ko dese bariwul perte ngeen te wax ngeen fi lu ne. ci yàlla li ko dese bariwul perte ngeen. Macky Sall bu li ko dese bariwul perte ngeen. foofu parce que foofu de tuuti mu day Macky Sall lu ko dese ko lu ko dese bariwul perte ngeen tuuti mu day <laughs> dëgg dafa garaaw de dëgg dëgg dafa dëgg dëgg dafa diis déggu leen nu mu waxee. ma am ci politique yi mënu leen ko am parce que Macky Sall bu li ko dese bariwul perte ngeen. day day na woon day la seere woon ok dafa seere woon Macky rek day ko lu ko dese bari perte ngeen day na ko nag wuure yàqu na nag <laughs> daf ko najoon naj na ko de naj na ko xool leen nu ko najee lu yàgg day mi ngi woon ci tuun gi mais da ko naj. toog ci douze bi Macky lu ko de de lu ko de sama réew pour perte ngeen <laughs> déglu leen ko ko am parce que Macky Sall bu li ko dese bari mu perte ngeen di wax ngeen fi lu ne di change yàlla bu yàlla bu diis non yàlla yàlla du nit lii ilaha illa tey kuréel sa 35 minutes yi audio bi dama koy sirote ndànk ndànk laa koy daggalee gaay li ma am ci politique yi mënu leen ko am parce que Macky Sall bu li ko dese bariwul perte ngeen ngeen fi lu ne di changer pes ah donc ok tey lii la woon ah incha allah prochainement ñi indilaat leen indilaat leen indilaat leen naa ko dagg naa daggaat yeneen indilaat leen parce que 35 minutes il faut ñu sirote ko il faut ñu sirote ko préparer ko 35 minutes yu tàng euh, kaani guanaa la 35 minutes yu kaani Tyson la 35 minutes yu guux di gañ la 35 minutes yu tàng la donc duñ ñëw di leen ko jox comme lem ngeen naanee ko caayin wala ngeen naanee ko jus donc foofu la ñu yem tey ba prochainement euh, suba incha allah opération rëbb dëmm dina am euh, xëy na ñu indilaa leen leneen mais fii la ñu yem ak yéen ci tey ci waxtaanu tey bi ñu fas yéene leen tocc mi waat suba xàq bil xàq dëgg sa right all right kaay wax fi tey mu leer bala fi ñu la di weer na mel ni jant weer dëgg rek dëgg ay ca ma tout dernièrement ma ñëw nag takk daal yi dugg ci temps bi eh Ahmed Khalifa Niass nga ne da nga am ay doom yi dóoraate ay doom yi <laughs> yoo xam ne dañ leen di gis daw maa ngi naat nag xaaral ma takk daal yi maa ngi génnaat de lan laay sol sax yee xaaral ma sa doom yi bu ñëwee sax sa doom bu ñëwee sax jàpp ma ma sax mun nañ ko futti gis nga ay ori ah, ah, am dara de ah je pense ah yii mun xam nga yow nee leen après rek xam nga de dañ koy xam nga bees tax ah bees gisoo koy daaj yi xam nga voilà quoi dindi nii xam nga nii la lii laay maa ngi génn naa ah, maa ngi génn na wax sa doom yi ñu at ñu ñëw sang waaw bii nii Ahmed nee sa doom yi ñëw song ma da ngaa may doom yi nekk bànne ah? di song at ah, maa ngi nii xoolal ci métro yi laa dugg nag maa ngi dem naa ni ataaya nee sa doom yi ñëw song ma song ma nga ne maytul Ahmed Khalifa song ko song ma song ma nga ne maytul nii rek la song ma songu ko waay woykat bi loolu waxoon song ko nii rek la ah nga doo maytul song ko da <laughs> nga duul ay sa sama doom yaa ngi buñ daw man maa maay daw <laughs> man maay xaaral ma sol samay kawas man xaaral la mel ne ma tuuti kii parce que may génn dugg ci taan bi man dugg si taan bi <laughs> dox ci taan bi dugg ci taan bi dugg ci métro yeeg bis yi yoruma oto boo xam damay nëbbutu sax yoruma oto may nëbbutu de damay dugg ci métro yi dugg ci bis yi léegi amee doom yi attaqué ne la moolaay ngi noonu ci jóg boo buggee sax ma laay fal la yow direct ci biir métro yi nga dégg métro yi ay arrêté métro tel métro tel bu dee da ngaa yore doom yu dóoraate ñun dañoo yor ay loxo yuñ takk yoo xam ne da ngeen da ngeen ñëw noonu la neexee di dó di dóoraate di dóor say doom di dóoraate <laughs> yéen a yor le monopole des dóorateurs yéen yéen a yéenay dóoraate ñun dañoo takk sañ loxo yi <laughs> ah, buñ ma dóoree pare ma agressé nañ yóbbaale daal yi ah. dafa cher nag ay yo ay ori ay ori la ah waaw am garantie am lépp ah buñ dóoree ba pare ne la ñu futti ma dégg nga yóbbaale ko perte ngeen ay ñu déglu ay ja kanam tuuti ñu tàggee ma la ne ma kóor na nga kura dee na mën na ne yàlla na yéex every time it's happening dafay am dafay am moo tax il faut ñuy sóor des fois benn innocent la rek bu ñëw ñu dugal ko ci maf xoolal jaxase ko rëbëje ko xamul li muy def dara laajal aji ndax ku la mag xam nga lu magi def mm-hmm. dafa ree